ami internet yi ñu seetaan à travers sbtmedia.com amati nañu mbégte jànnowaat ak yéen comme ni ñu koy defee euh, chaque week-end rek euh, ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di euh, semaine buzz. li ni mel nag dañu koy jukki rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu seetaan à travers suñu site internet bi fi si diwaanu Sénégal waaye itam ñu nekk si diaspora bi. dooree nag semaine buzz bi ak li nga xamante ne rek moo xew nekkee ni dem bu ci guddi foofulee ca diwaanu Kaolack Ndangaan dëkk Mbose Kumba Jigéen ca marché central bu diwaan ga nag. rawatina ca mbaaru foogu jaay li ni mel nag ñu déclaré fa nekk nii démb ci guddi yemoo nag ñaar fukki waxtu ak ñaar si guddi bi mu jotee lakk-lakk bu métti boo xamante ne am na ca marché central ba rawatina rek fa ñuy jaayee foogu jaay lu ci mel ni nag waa sapeur pompier ñu leen di wooy rek les soldats di fa ñoom ñoo ne daal di woon nañ fa teew rek waaye laata ñuy fay nag lakk bi def na rek lu mot juróomi eh, wax ñeenti waxtu jàpp juróomi waxtu laata si noonu sax la ñu dem lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca diwaanu Fatick ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diwaanu Nioro ak euh, diwaanu Diourbel ngir rek ñu ñëw sauver si jamono jooju nga xamante ne rek lakk-lakk bi ne nemeewu nañ ko foofu noonu ca marché central bu Kaolack ay bagage nag dara génnul ca fa nga xamante ne moom moo di rek ca marché Fripoli ñu koy wax mbaari fugu jaay tax rek euh, ba jaaykat ya moom du doon yuuxu wala di tudd rek yàlla bu baax a baax ndax euh, seen i bagage ak seen i xaalis dal dina naxsaay ci boobule bërëb yal na leen yàlla jàppale ba ñu mun a am xoole muñ bu ñu koy muñee ndax doon na loo xamante ne métti na ñun waa SBT Média point com ñu ngi ciy ñaan jàmm ak salaam ñu wax ne rek bu mu amati fa nga xamante ne moom moo di ci dëkk Mbossé Kumba jigéen waaye nag dañu wax leneen rek jëmale ko nak ci ki nga xamante ne moom moo di rek Mamadou Diop Decroix Mamadou Diop Decroix nag moom moomee daal dina rek yëkkati ay kaddu jëmale ko ci ah, màggal Touba bi nga xamante ne ah, ku ci nekk rek yaa ngi yëy yàbbi jëmale ko ci annulation maanaam rek ñu ajandi ko ah, ci atum 2020 ginnaaw bi nga xamante ne rek dañoo nekk si jamonoy mbas di coronavirus askan gi nag daal di jaaxle ci jàngoro bi nga xamante ne mu ngi gën di law rek ci fi nga xamante ne moom moo di ci diwaanu Sénégal temps nag weesu ki nga xamante ne rek moom moo di Mary Teuw Niane daal di woon a génn doon sakku ñu ñu ajandi li ni mel waaye nag ci réseaux sociaux yi internet yi yëkk nañ ko nag lu mel ni eh, xeme ba ci sax Touba ci ginnaaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si gaynde ginnaaw gaynde Fatma ñoom ñoo ñëwee rek daal di ko yëkkat lu mel ni xeme li ni mel a tax rek ba ñu ko posé question moom eh, Mamadou de Decroix ne ko nan la gisee li ni mel eh, ci gàmmu gi nga xaman wala gàmmu ak wa ilaa màggal pour rek ñu ajandi ko moom lu mu ci xamle moo di rek amul lan lañ ciy wax ndake ne ñoom ñoo wax ñu aj wala ñu ñàkk ko aj li ñu mel daal mooy que ne gouvernement bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di rek kilifa diine yi ñoom ñoo war a waxtaan seen i biir ba trouver rek terrain d'entente waaye wa mbokk yi ñu desandi ba tey rek ci li nga xamante ne moom moo di annulation màggal wala sax gàmmu ci atum 2020 ginnaaw bi ñu nekkee si jamonoy mbas waaye nag bi la yoon dañuy talal suñu micro ki nga xamante ne rek moom moo a Moustapha Diakhaté ancien ministre bu conseiller bu nekk ci réew euh, Sénégal di njiitum mi moom moomee rek daal di yëkkati ay kàddu jëmale ci bile màggal waajtaay bi euh, euh, nga xamante ne moom moo di tabaski gannaaw bu ñu koy waaj rek jàngoro bi dafa lawoon rek bu jaaxal askan gi tax na nag muy wax ne rek bu ñu jëmee ci màggal Touba nag wala gàmmo dina gën a jéggi dayoo moom moomee dina yëkkati ay kàddu rek ko ci li ni mel Moustapha Diakhaté nag nekk leader bu Manko taxaw APR ki nga xamante sax li Sall mu ngi ko fësal ci euh, phase euh, ci page Facebook am di xam leen rek ne euh, ginnaaw bi nga xamante ne mbas mi dugg na ci réew mi nag magal Touba bi nag day gën a yokku rek li nga xamante ne moom moo di jàngoroy coronavirus ci tabaski bi amoon nañ rek mille quatre cent deux mille vingt quatre cas deux cent vingt quatre la ñu ko am ci réewum Sénégal kon nag magal bi day gën a yokku rek li nga xamante ne moom moo di jàngoro bi di coronavirus lim gi nag fi mu toll nii réewum Sénégal am na rek lu toll ci onze mille trois cent quatre-vingts cas Euh, ba euh, ñaari fan ci weeru mars bi jàngoro bi duggee ci réew mi euh, mille 7449 ñoom ñu rek la ñu faj koo bañ da rek delluwaat si seen i activité waaye itam 238 ñoom ñoo ñàkk seen bakkan 3692 euh, ñoom ñoo nekk sous traitement li ni mel nag euh, ñu koy wéyandi rek fi nga xamante ne ba tey euh, moom moo di rek ci semaine buzz waaye nag desandi ba tey ci li nga xamante ne moom moo di annulation gàmm wala màggal waaye nag bi la yoon Karim moom Xax moom moom la ñu talal suñu micro li ni mel nag dal dina yëkkati rek ay kàddu jëmale ko ci li ni di wax leen rek ne lu tax ñi nga xamante ne ñoom ñoo autorités yi rek di wax ñu dakkal màggal Touba wala gàmm ndax dañoo gis ne rek ki nga xamante ne moom moo di première dame di Marème Faye Sall euh, day def rek ay xumbute wala sax di dem ci li nga xamante ni moom moo di ay cérémonie te buy dem day ànd ak njabootam fekk fa ay mbooloo bu takku kon nag jarul ñuy wax ne nañu ajandi euh, li nga xamante ne moom moo di rek Magal euh, Touba moom moomee rek di activiste daal dina rek ñaawlu lool ci li nga xamante ne moom moo di annulation yi jëmale ko si cérémonie religieuse yi daal dina xam le nag lii di jàngoro bi di coronavirus waru tax rek taalibe yi bañ a màggal li nga xamante ne moom moo di màggal Touba wala ila gàmmu annuel 2020 mbokk yi ñu wax leneen waaye nag bi la yoon dañuy wax rek si dënn yi nga xamante ne ñu ngi faat doomu aadama yi fii ci diwaanu Sénégal ah, waaye nag bi yoon dañuy dem rek ca dëkk bi ñuy wax Toubacouta nekk ci région bu Fatick ci dëkk bi ñuy wax rek ah, Kër Laayeen Socé ginnaaw rek dënn bi nag ah, ci semaine bi ñu weesu rek dañoo faat rek ñaar dafa faat ñaari doomu aadama ay jigéen yoo xamante ne ku ci ñekk mu ngi am rek ñaar fukki at ak juróom keneen ka am fanweeri at képp dong bu ñu sukkandekoo sax si témoins yi ñu nga xam le rek ne ñaari jigéen ñoo dañoo dawoon rek a uh, ci ab garab gannaaw ba rek ba mu doon taw taw wu métti li ni mel nag uh, dënn ba daal di leen fekk ci garab ga boom leen ba ñu dem ca barsàq yàlla na leen yàlla yërëm te xaaral leen aljana ay wa mbokk yi dañuy wax leneen nag ba tey dañuy dem uh, fa nga xamante ne waat ci diwaanu Kaolack Ndangaan waaye nag a ca dëkk ba ñuy wax rek euh, Touba xoo nekk ca yoonu Ndiaffate ab accident bu métti la ñu fa nemeeku ci semaine bi mu doon nag ab euh, set place boo xamante ne rek dafa rañaan ab taxi bu nekkoon ca boor bi maanaam rek gaare woon ci côté li ni mel nag bu ñu sukkandekoo ci li nga xamante ne moo di bilang bu njëkk bi ñaari doomu aadama ñoo ci ñàkk seen i juróom-ñaari rek euh, juróom-benn doomu aadama am ci ay gaañu-gaañu bu ñu rawale leen ca l'hôpital régional bu El Ibrahima Niass bu diwaane au Kaolack yàlla na yàlla fëgg seen boppu ñu wax leneen waaye nag bi la yoon nekkee ni barke démb ci fukki fan ak ñeent la ñu doon màggal rek génnib àdduna Bassirou fay nekkoon fi ab étudiant ca université bu diwaanu Ndakaaru Ndiaye moom moomee rek ñu boomoon ko ca ab euh, toogaanu ñaxtu bi nga xamoon amoon na foofu ca diwaan ga euh, ci fi nga xamante ne rek moom moo di fukki juróom-benni fan euh, ci 2014 la mbir mi amoon mu def rek li nga xamante ne moom moo di juróom-benni juróom-benni at ñu di ko màggal fi nga xamante ne moom moo di ca diwaanu université bu diwaanu ndakaaru njaay ay jege ñaaleem waaye itam ñi nga xamante ne ñoom ñoo di mbokku taali euh, mbokku taalibeem yi nekk ci daara gu kawe googule ñoom ñoo ñe dal dinañ ñaawlu rek bu baax a baax ñu nemeeku sam seen euh, kanam yu triste ñu dal di rek euh, jooy seen rongoñ di toq fu dal fu nekk rek ndax bi ñu yërëmee bi nga xamante ne rek moom mooy basiru fay génni àdduna te sax ñoom ñooñee ñu ngi sàkku rek ci gouvernement bi bu ñu sukkandikoo ki yoroon seen kàddu di Babacar Keita di xam ne rek nekk ca faculté des sciences juridiques et politiques di exiger maanaam rek di wax joxoñaale baarumu tuuma gouvernement bi ñu jël rek seen i responsabilité waaye tam seen engagement ngir rek indemniser njaboot ji nga xamante ni ñoom ñaa ñoom ñoo ñàkk seen doom te diko jooy te noppeeguñu Bassirou fay yal na yàlla euh, xaaree ko aljana te oyofal suuf si koom mbokk yi ñu seetaan à travers sbt média point com euh, dañuy wax leneen waaye nag ab ndaw si nga xamante ne dañu ko jàppoon rek a ca Sacré Cœur di ko doon malmené maanaam di ko toroxal naan rek dafa sàcc li ni mel nag tax rek ba ñu dal di leen tegloxo loxo ñu doon def ñaawteef boobule gannaaw ba ñu amee ab vidéo bu ñu fasal euh, ci réseaux euh, sociaux yi nekkee ni nag ci fi nga xamantene moom moo di juróom-benni fan ci weeru août la li ni amoon nekkee ni nag démb lañ doon jàkkaarloo rek ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ëttu kaay yi bi leen di auditionné nag jamono ji ñu dàq nag li nga xamante ne moom la mbir mu féetoo gannaaw rek ba ñu leen jàppee ci collectionnel yóbbu leen rek ci arrêt bu police bi nga xamante ne def na li ni ñu di leen di toppee rek li nga xamante ne moom moo di collectif euh, division de données caractère personnel waaye itam attente à la pudeur waaye itam atteindre à la mu doon loo xamante ne sax bu ñu sukkandikoo rek su suñu journal bi di laas moom moo génnee boobule information mbokk yi ñu seetaan à travers média point com dañuy wax leneen waaye nag bi la yoon dañuy wax ci ki nga xamante ne rek moom moo di Escoumé Escoumé moomu sax ay atam war a toll rek si ñaar fukk ak juróom-ñaar mu nekkoon rek ab vigile foofu la ca euh, ministère de la santé et de l' sociale moom moomee rek gannaaw ba ñu wàccee ay keesu ay keesu li nga xamante ne rek moom moo di ay masque ci la sàccoon rek ñaari kees yoo xamante ne da rawale woon li ni mel nag ah, mu daal di woon rek euh, ñu jàppandiko gannaaw ba ñu doon def euh, procès bi nag ci alxames bi nga xamante ne moom la ñu euh, génni euh, moom moom mooy rek daal dinañ ko jàppee dal di ko rek gise si des flagrants délits ci tribunal bu grande instance bu diwaanu Ndakaaru Ndiaye ngir rek lu ñëwal wàllum sàcc bi nga xamante ne bien public la daal di jël moom moomee sax daal dina rek reconnaître ne moom moo def li ni mel waaye nag da jël rek ngir faj yaayam mi nga xamante ne dafa am ay dafa am jàngoro ba ñu bindaloon ko rek li nga xamante ne moom moo di ay ordonnance ñu dal di ko nag bàyyi mu dellu ci ay ñaalem waaye nag dañ koo tëj rek juróom benn weeru kaso waaye nag juróom-benn weer yi nag par sursis la maanaam rek du ko tëdd bu ñu sukkandekoo ci réew mi nga xamante ne moo indi boobule information. mbokk yi ñu seetaan à travers sbt media point com dañuy wax leneen waaye nag bi la yoon ci ab commerçant rek la ñuy jubali ganaaw ba ñu ko tegee loxo. Euh, ci ba mu defee rek lu ma lu toll ci fanweer ak juróomi sekk yoo xamante ne da ko def mu mel rek genre provisoire la ko defoon. li ni mel nag moom moo moomee di wuyoo ci monsieur Ka euh, monsieur Kane boobu rek nekk ab grossiste bi nga xamante ne sax dafa nekk ci loxo yoon jamono ji euh, ganaaw rek ba ñu ko arrêté nag ci ab sec boo xamante ne da koo bàyyi woon ci ab boutique chinois gannaaw rek ba muy jënd ay couches bébé. li ni mel nag moom moomee ba mu demee nag xaalis bi mu yoroon de motul ci la bàyyi rek li nga xamante ne ab sec la lu toll ci juróomi million quatre cent cinquante mille suñuy koppar rek bàyyi ko ci boobule chinois mu toog nag ay fan wala sax ay semaines yoo xamante ne ki ni euh, ki nga xamante ne moom moo di chinois boobu gisu ko ci la ko yóbbu rek ci fi nga xamante ne moom moo di ca diwaanu dikk dal di ko porte plainte moom moomee sax ñu dal di ko jàpp bi ñu ko jàppee nag di ko atte dal dinañu ko tëj rek ñaari atu euh, kaso waaye itam nag euh, ñaari atu kaso yooyu bi ñu ko tëjee ci lañ ko tëj rek li nga xamante ne moom moo di trois mois yoo xamante ne rek da koy liggéey te du ko sañ a bañ mu doon nag loo xamante ni mu ngi xewee fii ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye mbokk yi ñu seetaan à travers sbt média point comme dañuy wéyandi rek li nga xamante ni moom moo di euh, semaine buzz bi li ni mel nag dem talal gannaaw nga xamante ne rek moom moo di euh, Jibi Jaxate nekk ab sociologue moom moom moomee sax dal dina joxoñ baaroomu tuuma ndaw ñi nga xamante ne dañuy faral di def ay ñaawteef di def ay saccage si fi nga xamante ne moom moo di ci réew mi di taali ay pono waaye di toje ay oto waaye di baare ay li nga xamante moom moo di route nationale moom moomee rek di jibi jaxate di ab sociologue analyser na nag mbir mi dal ko su suñu di xam leen lu jig njaag ñun ñooy njaag ndax rek ñoo yem ci li ni mel dafa dem sax ba ndaw ñi nga xamante ne dañoo waroon am ngëm-ngëm gëmatuñ li nga xamante ne moom moo di société civile waaye itam gëmatuñu ay association gëmatuñu ay défense l'assemblée nationale tam naka noonu dem sax ba ci gouvernement bi nga xamante ne ko ko benn yoon muy wax le rek muy xam le ne moom mi nga xamante ni moom moo di Djiby Diakhaté li ni mel ndaw ñi waruñ see sukkandeku rek bay def ay ñaawteef tax na sax muy xam le ne rek ku am ay ndaw euh, ci ab dëkk am nga sens lool mu am dëkk boo xamante ne dina jëm euh, ci kanam mbokk yi ñuy wéyandi rek li nga xamante ni moom moo di xibaar yi waaye nag bi la yoon dañuy dem euh, ca Touba gannaaw rek ci semaine bi ci nga xamante ne rek ci diggante cantaakun yi nekkee ca dëkk ba nekk rek si janatul maxwa cantaakuun yi nag ñoom ñoo ñëwee seen sëriñ génne àdduna rek di sëriñ Béthio euh, jaamu sëriñ Saalu boobule ñoom ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo féetoo ca kawu soxna Aida Diallo ak euh, sëriñ Saalu Cuun Gueule Tapée du ñu laaloo taal benn yoon li ñu mel rek ci alxames bi ñu xeex xeex bu métti euh, ca diwaanu Touba bañ sax ñu tegandi rek lu toll si juróom ñaari doomu aadama yoo xamante ne ay taalibe Serigne Saliou Thioune la gannaaw rek ba ñu faytoo ci kaaw soxna Aida Diallo déposé ab plainte ci fi nga xamante ne moom moo di commissariat bu diwaanu Touba waaye nag bi ko ki nga xamante ne yëg na ko rek di Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée ci la dal di jël wotoom rek wutali ca Touba ngir sotti ci ndox mu sedd ba fi ñuy wax ak yéen nii sax jamono ji ñaari doomu aadama yi nga xamante ne ñoom ñoo féetoo bokkoon ci boobule xeex am na ñaari nit yu ci am gaañu gaañu yu métti eh, ci loxo ak si bopp mbokk yi dañuy wax leneen waaye nag bi la yoon dañuy dem rek ci dëkk ba ñuy wax gole Galeya Galeya nag nekk ci département bu Podor ci li nga xamante ne rek moom mooy anticiper philosophie yi ñu génni ñu ko doon amal rek ci fukki fan ak ñaar ci weeru euh, août atum 2020 gannaaw jongante boobu nag ñu nemmeeku ne ñaari jigéen ñoom ñooñee rek bokkuñu euh, ci boobu la jongante gannaaw ba ñu amee ab absence bu jéggi dayoo si jury bi nga xamante ne 1076 la nekk ci boobule lycée 1076 jigéen ñoo xamante ne rek juróom-ñaar ñoom juróom-ñaari jigéen ñoom lañ fi nemmeeku rek ñu absenté waaye nag juróomi juróom-ñaari nit lañ fa nemmeeku mu absenté waaye juróom yëpp ay jigéen lañ mu doon loo xamante ne bu ñu sukkandekoo ci l'observateur ñu ngi xam leen rek ne ah, kenn ka moom ab borom këram rek nekkee fii ci diwaanu Ndakaaru Njaay di jàngale sax moom moo tax rek ba demul defi examen ba waaye nag keneen ka moom mu ngi sëy ci boobule kër moom itam demul rek fekkee ji li nga xamante ne moom moo di anticiper philosophie boobule mu doon loo xamante ne nag dal dinañu ko ñaawlu lool bu ñu sukkandekoo ci ki nga xamante ne moom moo di proviseur bi nag mu ngi xam le ne lu toll rek si fukki at ak ñett xale yu jigéen yooyu di ko jàng waaye itam daal di def seen i koppar lépp rek daal dina naax saay ci noonu ci ngelaw gannaaw ba ñu rek narute def li nga xamante ne moom moo di examen mu doon sax loo xamante ne du bulet ñu koy nemmeeku ca département ah, bu podoor li ni mel nag euh, ki nga xamante ne nag moom moo di superviseur bi dal dina ku ñaawlu bu baax a baax ca ba muy xamle rek ne ku ci nekk sax ku jigéen ku si njëkk moom moomee rek moo jëloon euh, compo bi ñaari ñaareelu euh, seen classe c'est seen premier semestre bi mu doon loo xamante ne nag dal dina leen métti bu baax a baax li ni mel nag di gën di law ci diwaanu Podor bu ñu bàyyeekoo ci foofu dañuy ñëw rek ci nekk ni démb fi nga xamante ne rek moom moo di ci diwaanu Sénégal ñu doon féete rek lii di 15 août 15 août nag nekk démb nag maanaam ci dëkk bi nga xamante ne moom moo di ci réew mi diwaanu Sénégal ak li ko wër fenn rek foo dem amul benn xumbute ndax rek si jàngoro coronavirus la ñu nekk diwaanu Saint-Louis nag la ñuy jubali gannaaw rek bi nga xamante ne préfet bi nag di Mariama Traoré moom moom rek dal dina fa aaye lépp luy xumbute rawatina rek ay beñaat maanaam dem di sangu ji ci place yi ci place yi nga xamante ne sax dañ leen di dipee l'hydrobase ak bi nga xamante ne moom moo di place bu Sal Sal euh, ca dëkk ba ñu wax rek saint ci diwaan dëkk bi ñu wax Saint-Louis nag nekk ni démb ci quinze août bi nag daanaka rek moom moo rawoon dëju liir gannaaw bi nga xamante ne rek euh, li nga xamante ne moom moo di jàngoroy coronavirus tax na rek ba li nga xamante ne moom moo di 15 août kenn feetu ko euh, ca diwaanu Saint-Louis lu ñu mel nag tàmbali ci aljuma ji yemoon nag fukki fan ak ñeent jàpp rek ci fukki fan ak juróom-benn gannaaw bi nga xamante ne rek euh, préfet bi di Mariama Tarawale moom moo ko xamle gannaaw ba mu doon jàkkaarloo ak taskatu o yi mbokk yi dañuy wax leneen waaye nag bi la yoon dañuy dënk suñu micro rek wa ilaa déglu ñi nga xamante ne moom moo di journal exclusif gannaaw ba mu yëkkatee ab information rek jëmale ko ci ap directeur général bi nga xamante ne sax ci grande agence la nekk nekk ci APR moom moomee rek dañ koo jël ab vidéo mu ciy def ay ñaawteef di sëy xale bu jigéen sumeeku nag ba set ñu daal di jël ab vidéo nag nar koo wasaare wasaare nag fi nga xamante ne moom moo di ci réseaux sociaux yi tax rek ba moomee rek nekk ci région bu Dakar daal dina def kemtulaay kattanam wa ilaa ñu sang ko sutura tax rek mu jënd ab oto boo xamante ne doon na oto bu seer ngir rek jox ko ñi nga xamante ne ñoo yor boobule vidéo ñu bañ ko wasaare fi nga xamante ne moom moo di rek ci réseaux sociaux yi mbokk yi ñu seetaan à travers sbtmedia.com ñu wéyandi rek li nga xamante ne moom moo di rek semaine buzz bi waaye nag bi yoon dañuy dem rek ca diwaanu Diourbel ca prison ba nag gannaaw ba ñu génnee ci information sukkandiku rek ci fi nga xamante ne moom moo di l'observateur ñoom ñooñee rek dañoo génne woon ab euh, information di xamle nak ab agent pénitentiaire moom moo ambal rek ab euh, ki nga xamante ne rek moom moo di détenu bu ñu fa nëbboon jant bi tëjoon ko rek juróomi atu kaso gannaaw ba ñu ko jàppee nag mu faatoon doomam fi nga xamante ne rek moom moo di ci diwaanu Ndakaaru Ndiaye ñu jàpp ko nag yóbbu ko sa diwaanu Ziguinne ci diwaanu Diourbel li ni mel nag euh, ba ko tenue bi defee li ni mel euh, ci lañ ko jàpp rek yóbbu ko foofule euh, ca prison ba waaye nag jamono ji ñu wax ak yéen administration bu prison ba dañ ko dañoo li nga xamante ne rek moom moo la ñu dodd la ñu ngàll si seen ndodd dañ ko rek ñaaw lu bu baax a baax waaye itam dindi tuuma yi rek ba mu set ne rek li ni mel dara amu ci waaye itam daal dinañu joxo ñaare baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy atu taskatu xibaar yi naan rek lu jig njaag ñoom ñooy njaag mbokk yi ñu seetaan dañuy wéyandi rek xibaar yi waaye nag bi la yoon dañ koy jeexale ak acti jëm nag ci ki nga xamante ne rek ab journaliste la nekk ab taskatu xibaar nekk nag ci réewum Sénégal moom moomee rek dafa defoon ay fausse facture wa ilaa sax jox ko ñi nga xamante ne rek ab ndaw bu yeewoo ca diwaanu biti xeew gannaaw ba muy naroo ñaa yëkkati rek lu toll ci ñaar fukki million si ñaar fukki junni si suñu kopar jagleel ko waa Touba ca kanam li ni mel nag ba mu ko defee moom moomee eh, di taskatu xibaar bi dal di ko nax bu baax a baax gannaaw ba mu ko joxee rek ay fausse facture ñu daal di nag wasaare li ni mel eh, muy woy ci diwaanu Sénégal ñëpp rek di ko ngurum ngurumee eh, tax rek ba ñu ko naree yóbbu ca yoon nag ci la nekk waa Touba ca kanam dal di rek waxtaan seeni biir ba mu des rek fi nga xamante ne moom moo di ca diwaanu Touba mu doon sax loo xamante ne dubuleet muy am ci réewum Sénégal mbokk yi ñu seetaan à travers média point com ba tey dañuy wax si acti people nag bi la yoon aba no ko jubali gannaaw rek ba mu defee si sinab saatam di xam leen rek ki nga xamante ne moom moo di rakku jabaram wala ilaa magu jabaram moom moo génni àdduna ca ba muy rek am doom tax rek ba moom aba mu nekk rek ci tiis ak naqar moom moomee di animateur bu te TFM nag daal dina yëkkati ay kaddu rek jëmale ko rek eh, ci ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Niang banaaw rek eh, ba muy joxe dund do ba muy joxe rek bakkan eh, ci la bakkanam daal di rek des si li ni mu di ko ñaanal nag bu baax a baax waaye tam bokk ak moom tiis gi ba tax na rek njaal yi nga xamante ne mu ngi bàyyeekoo ci réewum Sénégal di jëm ci Aba no stress na yàlla rek niital ko ci àllaaxira bi nga xamante ne fa la nekk di Ndeye Niang dañuy wax leneen waaye nag bi la yoon dañuy dem ci ki nga xamante ne moom moo di manager Viviane Sidit Ndour moomu la di Djijak Diouf Djijak Diouf moomu nag dal dinañu ko rek bàyyi may ko rek li nga xamante ne moom moo di mayam negandeku bàyyim negandekoom boobu sax gannaaw ba mu defee rek juróom-benni weer ci kaso gi ñu jàppee woon ko rek ci ab trafic visa waaye tam ci yeneen mbir yi nga xamante ne da cee laale woon ñu dal di ko may nag liberté provisoire bu ñu sukkandekoo nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo génnee information bi moom ji nag dañ ko defoon rek mandat de dépôt euh, ci fukki fan ak ñaar ci weeru février atum 2020 ci ki nga xamante ne rek euh, dañ ko doon jugé ci huitième cabinet bu nekk rek euh, ci li ni mel bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamante ne moom moo di Mamadou Seck ji jak nag dal dina am li nga xamante ne moom moo di bàyyi ndegandiku rek mu delluwaat ci fi nga xamante ne moom moo di ci ay activité li ni mel nag ñu di ko toppee euh, loo xamante ne rek ay association de malfaiteurs trafic de migrants waaye itam faux usage et faux et usage de faux mel nag dañu koy wéyandi rek ba tey ci li nga xamante ne moom moo di Actubuzz waaye nag ci bi la yoon pipol bi lañu koy wéyandee ba tey rek wax ci ki nga xamante ne moom moo di Waly Balago Seck gannaaw bu ñu sukkandikoo ci les échos Waly Balago Seck nag dañ ko doon déglu rek ci agence euh, waa dik gannaaw rek ba loxoom laale ci ab oto bi nga xamante ne dañ ko euh, sàcc ca Nanterre ca diwaanu France li ni mel nag mu ngi amoon rek ci fukki fan ak ñaar ci weeru mars bu ñu sukkandekoo nag eh, ci li ni mel gannaaw ba mu jàkkaarloo ak eh, tas ak etu layookaay rek ñu déglu ko bu baax a baax moom Waly Balago sek muy xam leen rek li ni mel am na ay témoins moom moo jëndoon rek boobule oto ci RS66 euh, ci ki nga xamante ne rek ci valeur bu toll rek si ñaar fukki million ak juróom-ñett suñu koppar mu doon loo xamante ne nag déglu nañ ko bu baax a baax ñu interroger ko rek ci li nga xamante ne moom Ousmane Ndiaye moom moo ko ko tuumal ci nga xamante ne rek wàllu balaagu sekk dafa sàcc otoom waaye nag bu ñu sukkandekoo ci Maodo Ba mi nga xamante ne ñu ngi koy woowee alliance PACO moom moomee rek dal dina seetal Wally balaago sekk ba mu set wicc di xam le ne rek Wally moom moo nekk témoin ba muy jënd oto bi rek lépp moom moo ko fekkee jënd na ko rek ci lu toll si ñaar fukki million ak juróom-ñett su suñu koppar mbokk ñi seetaan à travers sbt média point com dañuy jeexalee rek li nga xamante ne moom moo di li nga xamante ne moom moo di euh, semaine buzz waxee ko rek ci li nga xamante ne moom moo di rek tàggat yaram waaye nag bi yoon dañuy dem ci ki nga xamante ne rek moom moo di euh, Mbaye Gueye Fass nekkoon fi sax première tigre rek jamono ji nag ñuy wax ak yéen mu ngi ci ay jafe-jafe nekk sax ci guddi gu bët setagul gannaaw rek ba mu amee ab paralysie tànk ndeyjooram ak li nga xamante ne moo di loxo ndeyjoor bi ànd rek paralysé moom moomee rek lépp lu muy defal boppam dañu koy yëkkati ci li nga xamante ne moom la dund nag muy AVC boobule nag Mbaye Gueye mu Fass nag ci diwaanu Sénégal waaye itam ci lamb bi nga xamante ne moom la ñu nekk gannaaw bu ñu sukkandekoo ci suñu lamb mi nga xamante ne moom moo génnee boobu